Assalamu alaikum. Euh, lettre bi dama ko bind ko président de la république Macky Sall a bi mu jëndé avion 60 milliards monsieur le président mënuma comprendre ngay dem di yalwan pour ñu baal la bor te ngay jënd avion de jar milliards monsieur le président bët du yenn waaye xam na lu bopp monsieur le président oto bi ngay dawal di may Mercedes mën naa jënd oto ministre yu nekk ca France yépp benn ministre Sénégal oto bi muy dawal mën naa jënd gën caa néew juróom benni oto ministre yu France li ñu am bariwul waaye yéen ñi jiite seen bopp dong moom moo leen intéressé président noo mënee jël 60 milliards di ko def ci avion tey jéggalu tey sàkku tey yalwaan ñu baar la bor barki démb gouvernement du Japon signé na ak Sénégal di leen dogat dogateel bor bo xamné Sénégal daf ko wara fay Japon muy boru gatché laaj ma ñaata la 93 millions 93 millions de francs CFA mënu len ko fay ngén di laaj moratoire tay nga jënd avion wu 60 milliards. Monsieur le Président ma ngi lay lo xel ci né di ngay jënd avion 60 milliards kilo yàpp yegg na 4 000 francs bi ngay jënd avion 60 milliards juróomi litre dëwlin bouteille bi 4 500 dem 7 000 francs bi ngay jënd avion 60 milliards saako ceeb jugee na 13 000 monsieur le président yegg 15 000 francs ñooñu di góorgóorlu pour jënd loolu ñooñu un avion 60 milliards Si nous kenn wax nag avion président daf ko man sama position lu leer la Sénégal soxlawul luxe boobu Sénégal soxlawul avion présidentiel réewu Maroc moo ñu gën a jege ëpp ñu alal amuñu avion présidentiel réewu Allemagne ñoo ñu gën a naat dañuy dimbali Sénégal amuñu avion présidentiel balaa ngay xalaat avion présidentiel xalaatal flotte bu taxaw boo xam ne dina mun a dimbali say compagnie aérienne ngir mun a def assurer des yi ak yeneen dëkk yi monsieur le président ak 60 milliards est-ce que xam nga un suñu abri provisoire classe yi suñuy doom di jànge ñu ay day ci Sénégal 6600 classes en abri provisoire pour changer ko fi dindi ko fi éradiquer ko fi on a juste besoin de 33 milliards Beaucoup de ci 60 mu dess 27 monsieur le président est-ce que xam nga 27 milliards yoyu mën nga ci tabax 5400 cases de santé bu ko défé jigéen ñi dootuñu muccati ci kaw ay saret gone yu bari ci monsieur le président est ce que xam nga 60 milliards mun nga créer 2 millions d'emplois ci l'agriculture agriculture 1700 forages, mun nañ ko def ak 60 milliards bu boobaa dinañu irriguer 4 450 000 de diggante jolof bawal Kajoor Siin ak Saalum événement yii fi am mars bi ñu génn Moussa Dramé dëkk ndoofaan ñakk ndox ca Ndofane moo taxoon mu ñëw fii di Nooraan Nooraan googu mu doon def si ci lañ ko faat fii ci Ndakaaru te fi doon marchand ambulant monsieur le président xamal ne sénégalais yi ñu ngi lay bàyyi xel xamal ne sénégalais yi dañoo soxla ku leen yërëm sénégalais yi dañoo soxla ku bàyyi xel ci seeni i jafe-jafe ak seen i monsieur le président avion bobu nga jënd 60 milliards ngir sa nguur ngir sa banner ngir di ci gundaandaat ma ngi lay xamal né en 2024 inshallah suma vingt président de la république dina jël avion bobu jaay ko ngir régler ci problème sénégalais yi ku ñu yërëmul ñun yërëm nañu suñu bop sénégalais yi seeni soxla tay ji la gëna tar tey la réew mi gëna metti ndax dañ leen leen jaayoon yoonu yokkute yoonu yokkute googu tay ngeen nërmeel réew mi jëme ko ci yoonu yàqute c'est dommage c'est vraiment dommage